ñu ngi sant seen ñaari waajur di nuyu sunu maam Abdourahim Seck euh, di kon ñaanal yàlla fan gudd loolu àdd ak wér euh, di nuyu rakkam yëpp nag waaye di nuyu ki nga xam ne mooy de village su xay di suñu baay Balla ak imaam suñu daam donc di nuyu soxna ma Amin Ndiol ak kilifa yi nga xam ne ñoo la bokkal école bi yëpp donc ku lim da daal di jóom mais bu ñu ko limee rek mën naa yóbbaale ñëpp daal di siyaare euh, waa ñaan ñaala xale yi fi nekk. sans borom jàppaleel ba seen njàng mën a réussir comme ni ko nit ñi bëggee donc ñu ngi ñëw nag tey ci kàddu Ibrahima Khalifa Ndiaye ca Rabarisson ci jàppale gum jóg vraiment pour jàppale askanu commune Thiénaba ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci commune bi donc muy secteur yëpp daal fas yéene jël engagement jël loxoom ak dooleem daal taxaw population yi ci li nga xam ne moom la kem kàttam na man ci dooleem daal wax daal lii nekk acte boo xam ne loolu lu ndaw la ci ci lim yéene ci population yi surtout ci xale yi nga xam ne ñu ngi jàng euh, soxla jumtukaay mel nii ak proviseurs yi nga xam ni li leen di intéressé ci wàllu photocopie yooyu vraiment am ci benn aide boo xam ne jël na ko vraiment indil ko kilifa yi pour maam daal barkeeloo ko ci li nga xam ne daal mooy njàngu xale yi ak avant seen avantage donc di leen tàllal loxo nag di wax ni incha allah engagé wu na pour ànd ak yéen ci programme euh, commune Thiénaba surtout xëy école yëpp bépp jafe boo xam ne classe am na ko. vraiment engagé wu na ci tàllal loxoom ak lu mën a doon rek ngeen wax ko ko incha allah lépp lu mu ci mën daal dinañuy def kem kem kem kattanam pour maanaam daal fexe ba mën a saafara loolu. li bëgg itam mooy ba gisee mu woote mouvement bi mooy ànd suqali maanaam commune Thiénaba ñun ñëpp ñu nekk ay xale nekk ay jeunes cadres yoo xam ni ak suñu kilifa. fexe daal vraiment commune Thiénaba avance avancement boo xam ne ci Sénégal ñëpp dañ koy dégg donc di ko bàyyi xel nekk commune boo xam koy sagoo mu wax na ni dëgg la mag ngi fi jaar jàmbaar la ñu def nañ seen kéem kattan

amul parti couleur dal bu mu parce que mouvement la créer pour ñu andal borom xalaat yépp mën a taxaw commune bi maanaam mën a sagal commune bi maa ngi koo jàppale daal ba population yi seen jafe-jafe daal ak seen bëgg-bëgg donc xam naa yàlla mu mën lépp mais li ci ëpp daal incha allah dina ko mu saafara ko donc xam naa kàddu yi di gudd loolu moo taxaw mu def ko premier pas pour set tey visite école bi ah, ñaanal ñu fiy jàngale ñaanal ñu fiy jàng te itam encouragé leen ci seen liggéey rafet ndax ko école xëy vraiment commune Thiénaba ñëpp jàpp ni école bi vraiment école bu ko gën ay niveau donc bariwu fi ndax vraiment xalé yi arum jogé fi dem sembo machallah dañuy continuer di am ay moyens yu baax kon lool vraiment ñu ngi féliciter kilifa yi ne fi vraiment te te jël seen engagement ak seen pas-pas ak seen jom vraiment diko ko def ci xalé yi kon parents élèves yëpp dal kontaan nañ ci école bi ni muy doxé machallah kon jaar na école bi moom kenn wuru koo mën a sàggane wuru moo des faaw ñu jël yenn engagement yeen yenn yo yoo xam jappalé nañ ak li jappalé xalé yi ba vraiment ben jafé jafé inshallah allah duñ ko mëna am loolu la mën a wax Ibrahima Khalifa Ndiaye ñëw engagé wu vraiment pour taxaw ànd ak yéen daal ci liggéey bi vraiment di xeeb nag li fi def di wax ni incha lépp lu ngeen gisaat ak lu ngeen bëgg rek bu soobee bu nga tàllal loxo bu soobee yàlla incha allah nañ ci taxaw ak maanaam mën a taxaw euh, mën a saafara jàngoro boobu kon daal balaa gudd daal ñu ngi sant daal ñëpp di gërëm ñëpp daal ñaanal ñëpp jàmm donc yàlla na yàlla dolli jàmm waaw dañuy continuer waaw parce que école sëñ Ibrahima Seck lañ ko njëkk def mais école Thiénaba bi nga xam ne fa la Khalifa jaar kilifa yu bari jaar fa ci commune Thiénaba nga mën ci lim sénateur suñu waaju sëñ Talla Seck wala jànge Euh, ku mel ne seen papa Abdou Ndongo fa la jànge Moussa Diagne fa la jànge Moussa mii fa la fa la jaar Gora Ndiaye donc fa la jànge euh, ku mel ne Maître Kandji xam ni mooy sunu sakk ñun ñëpp ci commune Thiénaba nekk kilifa gu mag ci réew mi fa la jaar donc fa la fa jaar moom itam fa la njëkk jaar def fa lu mel nii après ñu def ko xay incha dañuy continuer di ko def ci école yi mag yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci loxo def ko àgg àggale ko ci ñoom ndax it xale yi ñu bëgg jàppal seen avenir daal kon seen njàng war nañ ci def suñu loxo ba ëllëg incha allah dañ ciy boole dañuy bàyyi xel ci ni doon leen jàppal daal Thiénaba Vision jël na engagement yëpp pour taxaw xale yi daal kon daal balaa gudd daal ñu ngi santaan ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm donc yàlla na yàlla dolli jàmm jërë ngeen jëf auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana wa mbokk yi bin sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ñi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di tàmbale nuyoo bi ci suñu xalif Euh, sëriñ abdu Rahim Seck di ñaan yàlla yal na ko yàlla may fan wu gudd yal na ko yàlla defal tawféex responsabilité bi nga xam ne yàlla teg na ko ci ay mbagam yal na ko ci yàlla may ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ foofu également ñu ngi nuyu imam ratib sëriñ Cheikh Amadou Seck di ñaan yàlla yal na ko yàlla defal tawféex di nuyu également suñu excellent chef de village muy sëriñ Alsaan Ñaan à travers lui nous saluons toute la population de de Thiénaba bon ginnaaw loolu euh, ñu ngi nuyu euh, sëñ Khalifa Ndiaye mi nga xam ni moom moo jiite Horizon di nuyu également magam ji nga xam rakkam bi nga xam ne suñu xarit la muy sëñ Mansour ak euh, Talla mi nga xam ni moo ko représenté vraiment ñu ngi leen di nuyu di leen delloo seen wàccaay nuyu également toute l'équipe pédagogique di nuyu également notre directrice madame Khoule di ñaan yalla ñun ñëpp yalla ñu yalla défal tawfiq tay nak vraiment euh, visite bi nga xamni euh, Horizon au niveau de l'école Khaye vraiment ñi ngi leen ci remercier bu baax ça a été vraiment une chose excellente parce que Kéba Mbaye da doon wax mu ni l'éducation et la formation sont les deux piliers essentiels pour asseoir le développement d'un pays parce que pays mënta développé bu fekkee éducation bi ak formation bi jaarul yoon kon tey lii mu ñu andil muy matériel bi muy ay rame de papier yoo xam ni dina yëwanal suñu liggéey vraiment nekk na acte bu am solo boo xam ni ñun ñëpp ñun koy saluer parce que Khalifa bien vrai que nous n'appartenons pas à la même famille politique car man maa ngi ci mais moom mi ngi Horizon mais man je le vois comme un un frère ba pare moom source d'inspiration la parce que acte yu positif rek lay lay poser liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk vraiment tey tous les élèves de Xay Babal toute l'équipe pédagogique ñun ñëpp vraiment kontaan nañ trop di ko jaajëfal ci act bi mu def di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ni mooy maye yàlla mi nga mooy moo xam ne mooy kàttanal yal na ko yàlla defal suturas àdduna ak suturas àllaaxira yal na ko yàlla may une réussite totale dans toutes ces entreprises kàddu yooyu daal lañ doon jooxal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu wàcc na Thiénaba Horizon di nuyu ñi équipe pédagogique bi fi nekk tey ci Xayba Ba muy voilà maa ngi leen di nuyu wàcc na ba Horizon di nuyu équipe pédagogique bi fi toog tey jii euh, di am contentement bu mag wax dëgg yàlla ci gest bi nga xamante ni defal ngeen ko école Xayba Ba euh, vraiment dafa ñëw à parce que bu ñu mënoon a wax ni tey jii lii nii ngeen indi nii tey muy ram de papier yi ngeen ñu jox kenn ku nekk xam na ni école léegi ni muy doxee mooy euh, évaluation yi ñuy def yépp lépp luy composition lépp luy évaluation lépp luy examen léegi sur feuille lañ koy def élèves yi bindatuñ ci ay cahier bu ngeen seetloo parents d'élèves yi yéen ñëpp kenn ku nekk seetloo ni élève léegi bu composition jeexee ay feuille la ñuy joxe kon feuille lañu gën a soxla léegi ci école bi yàlla dogalee ñu am photocopieuse xëy na ba pare feuille moo nekkoon suñu soxla bu gën a jàmp ñu seetaan ko nag gis ko muy act bu rafet boo xam ni Thiénaba Horizon def na ko ci Serigne Ibrahima Seck ñu rafetlu ko lool parce que ñun tamit comme nii nga ko limee yow Talla Gueye ñooñ ñooñu ñëpp fa lañ génne dogal na ni man mii tamit foofu laa génne man primaire Thiénaba laa génne kon muy muy acte boo xam ne Khalifa Ndiaye ñun ñëpp la ko defal ñun ñëpp la ko defal parce que bi Baye Zal lancé appel bi ñun ñëpp dañ cee gis suñu bopp xam ne tey xëy na euh, bu fekkonte ni am tal na ni ñàkk kon tey Khalifa Ndiaye balaa muy def ñun kenn duñu si jiitu parce que ñun ñoo ko sax ñoo ko jiitu ci école bi kon ñun tamit suñu rôle la woon lii ñun la ko defal muy doon encore ñun suñu soxla fii ci Xay Babal ñu bind ko wax ko jaarale ko ci Issa Ndiaye mi nekk tey jii magam nekk si école bi mu diligenté ko nag affaire bi gaaw lool wax dëgg yàlla taxawaawul benn yoon bi ñu ko tegee suñu soxla rek ci saa si daanaka la am réponse ne ñu dañuy indil ñaata ngeen soxla ki la yéene ba di la laaj ñaata nga soxla xam naa yéene fa la mën a yem ñu kontaan ci lool nag rafetlu ko lool muy geste bu ci ñun xeebuñu ko benn yoon rëy na lool ci ñun parce que dafa ñëw ci fi ñu ko soxla fii ñu soxlaa dëgg-dëgg fi la ñu fekk tey jii bu ma la waxee nii la tey jii ngeen ko indi mais wóor na ma ni bu ngeen fii génn ñu commencé tàppi di ko di di ko utiliser kon xam nga ni soxla woon nañ ko waaw bokk na nag ci suñu ay soxla ñun xëy na li ñu ci yokk rek mooy bëgg nañ beneen machine ordinateur bu ñu soxla wax dëgg yàlla do doon na suñu soxla lool parce que ordinateur moom fi mu nekk mooy li ñuy gën a gën a gën a fi mu ne nii bokk na ci suñu soxla ñu leen di ñaanal yàlla nag ñoo ngi kontaan di leen ñaanal yàlla élèves yi ngeen ko defal mais ñun ngeen ko defal parce que tey bu ngeen ko indiwul woon dinañ def suñu ay moyens xëy na mbaa ñu làmbaatu feneen ak feneen ba am ko mais bi ngeen ñu ko jàpp ndalee gërëm ak sant daal lañ leen di defal di ñaanal yàlla ki nga xamante ni moo nekk ci bopp bi di Khalifa Ndiaye li nga xam ni moom lay mébét di ko wut yàlla na ko yàlla yombalal su gënee ci moom yàlla na ko yomb yàlla na ci jot mu jik ko jig famem yëpp maa ngi sant maa ngi gërëm di ñaan di jéggalu nag ci kàddu yi xam naa jubul lool waaye nag ñu sant yàlla bu baax merci beaucoup. ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكوى نفوس صدية سخطنا مرا